ngor fekk fi xale boo xamante ni ndaanaan la ci wàllu làmb bu mu fi dugg see ci làmb ak léegi yàggul waaye mu ciy wane boppam bu baax a baax a baax nee naa ko léegi c'est la première fois ma ñëw ci sa open press mais mosuma xam ni open press bi nii lay demee kon tey xale bi ñu fekk si moom moo war a bëri ak ki nga xamante ni moom mooy bébé bis mi bébé bis mi ni mu jël bëri ak Baba Jaxal def fa exploit bu mag fële ci arène nationale moom mii mi ngi stade Iba Mar Diop la mu jéeg bëre ak euh, ki nga xamante ne mooy caaturu bés def fa exploit bu mag comme ñoom ñaari mbër yëpp ñaari xale ku ci nekk ci ndam nga jógee waaye nag mbokk yi petite production lañ ci àndal le 20 novembre incha allah ci arène nationale balaa may def dara ma bàyyi ko mu nuyoo ak waa Ngor ndax waa Ngor xam naa ne tey loolu dañ na sas tudd si waaw sant yàlla rek yow nu wax na onze bila bisimilah ina wax na yàlla di julli si Serigne Touba di julli si yonente bi di sant suñu waa ñaari waajur di wax ne jaaraama maam Cheikh Fall jaraw la ci sëñ Matar Mbacke yow di nuyu àdduna yow rawatina fi ma dëgg nuyu Ngor Yoff Waxam Almadi Tarawo waaw di nuyu ñëpp rawatina Fass jàmm gën fu na jóge rek waaw maa lay sant di la gërëm di sant ñëpp rawatina mbëri may entraîné ñëpp su ma kenn rek juum teg ma ay coono yu metti jàpp nañ si làmb ji ku nekk li wane nga génneel nga ko di dooleel ma ko jàppalee ma ko maa ngi sant mbëri yëpp di sant samay coach su mel ni père bi Diop As Philippe benn melo Paul Maurice père Sindoy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñi ñëw fii ñëpp déplacé wu ñëpp ñëw di leen wax ne xam nga rek mbir mi bëggee ñu ko woon nii bëggoon nañ mu yegg kontaan mais bi ñuy li may wax sànq rek bi ñuy def mbir yi fan yëpp ñu siy waxtaan bi ñuy def mbir yi xamoon mbir mi xajul fii mais ñu ngi jégalu bu baax bu fi ñëw lu xamante ne soxol seetul rek ñu lay jégalu bu baax a baax ndax dafa sew yow di jégalu koñ bi yëpp xam naa ne amal naa leen àq bu baax koñ bi yëpp waaw rawatina waa école bi directeur bi ak Baye Makan lépp waaw di jégalu waat ñëpp waaw di wax ne maa ngi jégalu bu baax di sant sama tëggkat yi waa juddu suur ñëpp waaw du wax ne bismillah dal jaamu daa yéen a ngi ngor léegi balaa ñuy dem fenn dama lay laaj sa diggante ak Ada que dafa ñëw sa open press yombul bàkku muy sama waaw Ada yàlla xam na ne ba muy ñëw sax woo ma ko sax mu ñëw defal ma xam nga surprise kon dama ko si sant bu baax di ko gërëm waaw di wax ne moom du tey depuis Mbapane ba léegi saa yu may bëree Mbapane ba arène la si jàpp si côté bépp xam nga taxaw na ba dugg si fenn xam nga di jël ay ndigam di ma booleeg ñoom kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñoom Abakara gaa yëpp mafia bi yëpp waaw ñoom Sibéeru gaa yëpp waaw. lan moo la dugal ci bébé bismi bébé bismi ku gis dernier combat bi mu mujjee bëri ci arène nationale Baba Diakhal la bëree Baba Diakhal nekk champion boo xamante dafa ñëw wane boppam ci làmb waaye gis nga na ko bébé bismi def daf ko daan avec la manière lan moo tax pourquoi le choix de bébé bismi waaw balaa may ñëw si loolu maa ngi sant sëñ Xaadim dafa def ay déplacement am jóge ba Touba ñëw ñu jëmal bis bi ngir ñëw jàppale ma ngir ñëw dooleel ma bu baax di sëñ xaadim waaw sëñ xaadim mu may ñaanal waaw di sant àlla ba borom bambay maa ngi sant bu baax dafa def ay déplacement xam nga ñëw ba fii nii ñu liggéeyal ma ñu jàppale ma di sant ñëpp Mara Siré maa ngi sant bu baax a baax jàppale si làmb ji bu baax si côté bépp di sant Alé borom mat export maa ngi bu baax a baax yaa xam nga Alé lay sant di la gërëm di sant xam sama directeur sama patron daa di wax ne waaw moom mu si làmb ji mu ngi bu baax a baax a baax waaw di wax ne ke bëgg ñu mën a jàppale si tigee kaar yëpp di gën a woo sirif na di woo bépp sirif bu nekk ngor képp bépp téeméeru kurus bu nekk ngor di ko teg si loxoy sirif waluna waxal ci bébé bismi waaw ndax làmb dafa metti quoi moo tax a di sant ñëpp di gërëm ñëpp li la laaj lii yëpp ci ci dernière question yi ci nga waroon ñëw ci mais dama la laaj sa diggante bébé bismi da nga war a dem droit au waaw loolu benn bis sama diggante moom làmb la rek ba loolu weesu làmb. dama te gis nga li def baax ba jaxal ak ñoom bëri ko. waaw loolu xooluma ko sax man làmb la ñuy ma demee xam nga bay bu la demee bis bi lu nekk si moom kon ma teggi samay ngemb man samay mbokk ak samay supporter xam nga li ma leen dégg boo gën a métti bébé bis bi roi des arènes laa leen si mais xam nga bébé bis bi ñoom njool la dafa gis nañ ni combat bi daf ci entraîné bu bare bare bare bare bare yow naka ngay waajalee combat bi. waaw man loolu laa bëgg ñëw ñu ne bis mi liggéey na bu dee rek waaw équipe bi am nañu ko benn njool gën ko ñàpp daa ko bëre waa kon amul lu may sóob si moom ak bi cible rek laay xaar waa ñu jëflante bu boobaa ku nekk du si paree ku nekk dina respecté moromam pour ma dalee samay xel supporter li ma leen wax mooy bis bi nañ sangu ba naaj ñi di yëg si kaar yëg yi ñi ngi yëg si camion yi ñëmbati yëg si camion yi ñëmbati xam nga fu fu waay na nekk rek lay ñu bëri gis ñu bëri dañu gis ni Bébé dafa ëpp doole ñi ñi laa wax de ñi ne dañu ñoom seen gis-gis mooy Bébé Bismi moo ëpp doole Siteu bu Ngor ñooñu lan nga leen di tontu waaw gën a kontaan moom mu gën a yokku man la xeeb sa xal mu la ko sa daayi waaw moom bu jàppee ne moo ëpp doole moom ak mbokkam bu arbitre sifflé moom na wane moo ëpp doole kii gën a daj ay coonoom gën a liggéey si combat bi gën a yaa na ko yàlla may ndam loolu laay ñaan xam nga li may waxaat yeggalu ma ko woon samay supporter nañ sañ sa ba naaj waaw dem estar xam nga di jënd seenu sedd pour ku yorul kii yor mu jëndal ko waaw affaire bi mala affaire bi Siteu la xam nga ne xam nga ne day def ay demi rotation di bëri waaw bëri la xeebaluñu ko mën a a nam Bismi la waaw moo tax ma bëgg ko daan ñu boole ma si champion yi kon bu ma sama champion waaw. Bébé dañ koo seeti mu ne euh, gisul mëninu euh, ki nga xam ne moom mooy Siteu bu Ngor mënul bëre amul doole dem na ma Maroc waa ay maam la naan moo tax day yokk volume ay maam la naan mënul bëre dara daraam daal yëngulu ko ci mu waaw moom mënul bëre amul doole mais su ma waxee yéen ñi taxaw fi doo leen gëm parce que gis ngeen moom li mu wane. comprendre nga de pour ma wane waa làmb nangul ma foog ñu jëflante ba pare di sant ma fi yaa jaamagan bi yëpp ñoom Maysa Seras Tafa Kara ñoom Bamba Saay gaa ñoom Jam ñoom Amet Naar gaa waaw. góor musu koo diriger ci làmbam kombaam ak papa boo jine ay combat yu mu bëre nee gis nga góor mënu koo diriger nee na yow da nga da nga koy bu arbitre corriger say supporters ndax ak li ngeen di wax ci ci moom. waaw góor mosu ko diriger waaye ñaan nañu yàlla diriger ko man samay kilifa rek laay déglu suñu ma ñëwee rek ma xam ne ne xale bi yeewi nañ ko moom samay kilifa buñu ma yeewee bis mi nga xam ne man yeewi nañ ma yeewi da doomi lebu waaw. combat bi kan mooy diriger yow wala moom. li ma la wax xanaa su ma taxawee fii naan man nii laay bëree wala nii laay samay sama père ma si tamit ngaa comprendre nga am na loo xamante ne waxtaanu biir nekk la moom li muy indi bu mu si dara bu mu si teggi dara maa ngi toog samay tànga di ko xaar waaw. xeex bi loo ci wax yaa ngi koy bi. waaw xeex nee na day xeex nekk bi petit ñu koy gërëm bu baax a baax bay ba la ci question boobu nga ñëwaat ci laay ñëw dañoo gis benn bis bi. xeexkat la. te booy bi na ne mbër la boo xam ne day xeex est-ce moom fas yéene naa jàkkaarloo ba bis bi xeex am moom raag ku ne moom day xeex mais est-ce que xeex bi ngay woote ñeme nga jàkkaarloo ba bis bi raag ak moom ba supporter yëpp kontaan balaa ñu bëri waaw xam nga nga ne si la bëre rek yow da xeex rek samay supporter bëgguñu waaw bëreeg si la moom moo laaj xeex moo laaj lépp moom lépp la may léegi bu déggul xeex bi ma ne ko dañuy jure waaw te dina jure nag waaw incha allah dina jure dina jure waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. maanaam après ñu wax ko. Baye Balla gis ne tey bis xale yi nekkoon ci yoon yëpp dina ne freiné ku ci mel ni Bébé ba ci Baba Jaxal mi est-ce que Siteu bu Ngor mi ngi sóoraale loolu te moom ci nekk. waaw man xale laa rek. waaw xale bu ndaw laay bi ma duggee bi ma nee si bi ma ñëwee si làmb yàggul si làmb laa ko fekk waaw kon li may ñaan rek mooy. bës ñu def yëfu xale wane suñu bopp xale yu mu freiné laa la wax ñu ngi ci question bi ñu mu bi waaw maa si bis bi eh, di léegi léegi ci wàllu mobilisation bi ah ak ci wàllu sensibilisation bi supporters yi ci fair play lan ngay wax say supporters ndax si dafa ngor gis nañ ni saa buy bëre li koy topp ci stade bi macha la dafa bari lan ngay wax supporters waaw Baye Balla samay supporters nit dara laat seen xel rek di wax ne ñun xam nga ngor lañ dëgg ñun duñ tooñ kenn waaye ku ñu tooñ rek jot suñu jikko kon bu ñu kenn tooñ bolog yi bolog yi ñaata nga jëlagul ah bolog yi ñaata nga jëlagul waaw bolog yi ñu ngi jéegu daal bëgg nañ doole yeneen cinq jëlagul nañ dix waaw bëgg nañ doole yeneen cinq muy quinze incha allah nga ne jënd nga dix bloc jënd nañ waaw dugal nañ xaalis bi yëpp te bëgg nañ jëndaat yeneen cinq parce que xam nga rek mbooloo mi ñu topp du ñun suñu borom la kan moo nekk ci ginnaaw si bu ngor waaw ñi ngay gis fii rek ñooy joxe seen fukki dërëm seen cent franc ba dul làmba ñooy corrigé nañ natt kon lépp ñoom la ma leen sant gërëm sama exemple sama parcekle bég yëpp mooy jigéen ñi xam nga maa leen di jégalu di jégalu seen i parents nga woote balaa ngay woote jàkkaarloog Bébé Bismi nga koy mujjee wax lan nga koy wax Bébé Bismi nga xool ko les yeux ko live and direct nga wax ma lan ngay yokk ndax moom déglu open press ñu xool ko moom waaw Bismi waaw instant wax nañ ba làmba ji jar waaw lan wax nañ toogu nañ làmba ji ba mu jar kon lii des du wax lii des xam nga la fayda bu arbee si sif ñu def jox def jàmbaar waaw kuñ daan daal bu mu ne dafa defoon lee wala dafa defoon lee hmm. waaw jàmbaar jàmbaar a dóor da ngay dóor da ñu lay dóor waaw moo tax ma ne booy dóor da ngay dóor ku lay ragal sànq maa lay dégg mooy wax waaw booy dóor da ngay dóor ku lay ragal mbër. waaw confiance bi du lenn loolu samay grand ma taxaw ful ak fayda yee ma sentir lu ma masul sentir sama yaram waaw instant maa ngi sant yàlla quoi yaa nañu yàlla kàttanal dooleel ñu xam nga jëmbatal ñu waaw di wax ne lamb ji na ñëpp dem si tekk ak tee li fay am yëpp man maa koy def waaw loolu moom maa ko dig samay supporters bu soobee yàlla fi la ñuy ñëwaat dimanche incha allah ñu feetee suñu ndam si kàttanu borom bi waaw ñu waxtaanee lépp incha allahu rabbi waaw naata ndam bi essence sama ndam la de waaw yàlla ñuy cat ji di esaat ba rek mais sëñ Fallou daal waaw di jégalu ñëpp di jégalu yéen journalistes yi di leen jégalu bu baax xam nañ ne mbir mi métti na lool waaw te li ngeen siy gagné xam nga rek mooy loolu. kon ñu leen jégalu bu baax a baax. waaw ñu leen sant bu baax di leen jégalu rendez-vous le vingt incha allah. di sant booy jeunesse bi nekk si koso bi yëpp booy ngor yi nekk si koso bi yëpp. waaw bu ma limee rek juum ñu leen di ñaan xam nga yàlla indiwaat leen suñu biir. xam nga yàlla indiwaat leen suñu biir ñoom ñëpp. waaw ñu ñëwaat. ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax ku si nekk li la yóbbu woon boo ñëwee yaa nga yàlla xam nga jubal soppi la. waaw ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax si kàddu yaram